leneen nga dégg ci whatsapp bi. Hmm. ay vocal naan Serigne diw boo nekk xaw ma fan leen lañ jël juróom-ñaari puso juróom-ñaari lay set mm-hmm. juróom-ñaari xeer def ko mm-hmm. ci ndox sax boo ko bu ko def nangam ak nangam mm-hmm. euh, léeg-léeg ñu tudd sax ay tur ay turu jinne te boo ko limee juróom-ñaari yoon doo ci dee wala boo ko yónnee fukki nit ak juróom euh, am ay xéewal ci bi ci topp yooyu nekk ay détails yoo xam ne ëlëm xelu askan bi yéen en tant que borom xam-xam te nga xam ne tey bu seen métier la nga ci am gis nga nit ki bis bi nga war a dund wala bis bi nga war a dee dara mënu koo fàq ci suñu boroom li ci gën a gaaw mooy sarax sax léeg-léeg sarax rek nga mën a def mu yokk saw fan te doo ko xam suñu boroom lay yokk sa fan du la ko xamal nit ñi buñ nee léeg-léeg di joxe benn mbir nii ci audio yi man tey mënoon naa joxe benn baat boo xamante ne tey jii wallahi la azim buñ ko partagé ci whatsapp bi ku ko liggéey mën ngay liggéey ku ko liggéey njariñ li ci man la jëm nit ñi moo codé yooyu buñ ko xamut dañ koy dañ koy ba tey xaadim mën naa toog defar benn mbir boo xamante ne ci matlu bu boppam la ko def pare jox Sénégal ne ku nekk na wird euh, masalan euh, euh, fukki latif bu huit personnes bu huit mille personnes wala wala huit millions personnes wirde fukki latif yooyu noonu ci kum jëm ñoom dañoo xam ban adat la leen jox turu yàlla dafa nëbbu secret la moo tax mu tudd lasraar buñ la ko joxut dajoo ci lu métti mm-hmm. joxewoo ci xaalis mm-hmm. tarbiye woo ko ñu jox la ko mm-hmm. ku la ko jox ci mbedd mi nii rek moo la moo la moo la moo la moo la moo la sànq waaw alors euh, très bien gis nañu ay sëriñ yu bëri ñoom dañuy nekk ndaw mu fenk la ak ni mu euh, nga am waaw xam nga euh, jaamu yàlla moom boo ci xasee nekk wala nga nekk ci lasaraar doxal nag laa wax de ndax des fois sëriñ lasaraar dañu xaw a wute waaye bu fekkente ne da ngaa ne ci lasaraar rek war a doxal eh, day dem ba bis boo ko deful sax day mel ni dafa am lu la manqué waaw bis boo ko deful sax day dem ba am lu la manqué xam nga toog par guddi 4 heures de temps wala 5 heures de temps wala 3 heures de temps lu mu néew néew néew chaque jour nga jox ko suñu borom kooku mënta bokk ak kii fanaan nag kii fanaan ci kaw lalam wax dëgg yàlla mm-hmm. waaw kooku mënta bokk kii fanaan ci lalam wax eh, ndax eh, lal dafa neex am sa soxna mhm. ba ko fa mhm. am sa lal bu nooy nga ba ko fa ñëw toog eh, guddi ba benn heure bi nii nga jox ko sa boroom mhm. ah, sunu boroom kat nag wallaahi du boobu buur boo ko ñaanee dana luru sa gànt très bien Khadim gis lu la jaaxal nga am ci loo xam ne yow dépassé na la waaw loolu léeg-léeg mu am léeg mu am nga dugg ci mbir moo xamante ne gis ni mbir mii kat dugg naa ci def naa solution yi mais dëgër na trop eh, waaye mbir du dëgër ci sunu borom lu mu doon lu mu mën a doon du dëgër ci sunu borom gis nga ba ci tey ci suba masalan am na benn liggéey bu ñu nekkoon boo xamante ne dafa xawoon a taxaw takk taxaw tey ci suba dañu woo ay nit njaareem ñu am lim bu ñu defal fii ma am woo ay nit am lu ma saraxee am lim bu ñu ma defal ñu boole kook am yu ñu jàng ci tàkkusaan la ma woon ne ma la ma doon lijjanti woon nañ ma ne ma suba dañ may jox mbir moomu noonu te dafa dëgëroon mais gis nga course du nax nit. du nax nit du nax nit. maanaam yow ci bi nga ne waaw wàccaguñ ko waaw wàccaguñ ko déedéet mukk ñu ko incha allah dañu ñaan yàlla nga sut ay at sa wujju jigéen ñi xam naa bëri nga ay client yu jigéen ñi moom léeg-léeg da nga leen di sax euh, yërëm ndax euh, sëriñ mook médecin ñoo xaw a yem tuuti ci côté boobu mhm. la muy xam lépp bu ko waxoon àdduna tukki mhm. euh, jigéen ñi moom wax dëgg yàlla ñeme nañ sëriñ waaye jigéen ñu ci baree baree baree baree eh, bari jafe-jafe leen ci dugal góor day mën a proté day mën a maîtriser yenn yenn mbir yi waaye jigéen moom am na ci mbir yoo xam ne boo ko dalee du gis du dul am ci solution waaw day teel a daw jëm cee ut solution te it eh, jigéen ñi ñu ngi dund lu metti ñu ngi dund lu metti bu fekkante ne yaa ngi recevoir ay jigéen ngay waxtaan ak ñoom da ngay xam ni ñu ngi dund lu metti seen i sëy di nga xam ni ñii kat wax dëgg yàlla sax bëgg nañ sëy Mhm. waaw dangay xam ni kii bëgg na sëy daanaka doy na waar waaye yàlla nañu yàlla yokk sutura. jigéen ñi. Mhm. ñenn ñi li leen indi mooy dañoo bëgg borom kër. Mhm. rafet nañ. Mhm. am nañ xaalis. am nañ xam-xam. ñenn ñi sax yàlla bind leen. bind bu doy waar. mais mun ñu fexe. nga gis góor goo xam ne. bu leen dina sëy ak ñoom. téye leen ni mu leen war a téye. ñenn ñi am jafe doom. comme ni ñu aadoo. suñu aada yi nga xam ne. léeg-léeg ñu naan euh, dama wuti keneen. kii nga nekkal ba ba léegi mënta am doom. Euh, tey léeg mu dal ku góor dal ku jigéen. Euh, jafe-jafe yooyu est-ce que xaadim am na ci waaw waaw bu wér sax ñun bu dee ci wàllu doom kooku bu ñu ko traité ci jigéen euh, ñu baal ma ci kàdd gi sa ñetti euh, règle ma waxee ko noonu ndax ñëpp mën koo xam noonu euh, du du rëcc bu la première bi rëccee deuxième bi du rëcc mbaa troisième di nga yenu force waaw bu dee ci wàllu am doom mm-hmm. bu fekkente ne ci wàllu sëy la mm-hmm. tamit ci trois mois lañ ko kale bu ànd ak dogal suñu borom lañ lay jox bu ñu la ko joxee nga ñàkk koo utiliser daal moo ñu jaaxal ak nga def li li muy tere ñun sangat bi ñu lay jox pour nga sëy boo ko sangatoo boo moyul ci 3 mois yi boo moyul bu 3 balaa 3 mois jeex nga sëy waaw loolu moom lu wér la loo xam ne moom boo ko defee balaa 3 loolu résultat yi ñu kenn xamul nu mu toll mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw macha allah mm-hmm. euh, gën a bëri Mm-hmm. gars yi ñuy wax impuissance. Mm-hmm. maanaam néew doole néew kàttan. Mm-hmm. góor ñi. bon léeg ñu ne sax seen affaire dafa tuuti. ñu ne dañ koy yokk. réyaay beeg. ñu ne di jaay beeg. léeg ñu ne la vraiment mu nekk situation yoo xam ne. da nga ciy dégg léeg ñu wax la loo xam ne yow si wàllu bopp sax. da lay yéem da ngay da lay yéem quoi. mais est-ce que sëñ Xaadim bi nga liggéey ci loolu. waaw waaw waaw awra des koy yokk ci ñaari fànn bii des koy defar. am na yu ñu koy booleel di ko togg di nga koy lekk soo ko defee balaa bis bi nga ko tàmbali balaa moo del si dana dana dana dana dana dana mel ni la neex ci imma tamit am na ci beneen fànn boo xamante ne ci wàllu comme li nga wax sànq wàllu reen ak sungu fi demee noonu am na ci garab gu ci àll bi léeg am na ci façon doom bi muy jur dañ koy dem wuti eh, yow yaa bu ñu buñ koy wuti sax la lu ci baree bari dañuy ànd ak yow nit ki sax nga xool li nga xamante ne moom nga bëgg mu toll ni boo bu tolee noonu bu ñu la ko jëlalee defaral la ko ba pare def yi ñu lay def bu ñu la ko joxee bis bi nga koy tàmbali bis boobu noonu ca lendemain ba nga gis ni di nga commencé yëg yëg sa bopp ci mbir moomu noonu. waaw loolu moom bu soobee yàlla moom lu lu lu wér la bu fekkee kantaan new kàttan nag moom <laughs> eh, am na ci mbir yoo xam bu ñu ko joxee kooku moom néew kàttan moom yow da nga koy dégg rek. ay néew kàttan moom wala eh, nekk naa ak sama soxna mënuma kaa satisfaire ak yu demee noonu wala su ma tiimee sama soxna benn minute ma yëg eh, jot sama bopp yooyu moom danga koy dégg waaw yooyu moom dégg rek nga ci am moom bu soobee yàlla dootu la dal mukk moom mukk waaw lépp da nga ko teg eh, ko ci alxuraan waaw lépp lii lépp alxuraan la lépp maanaam yokk awra bi. lépp yaay dégg jaay dégg lépp. lépp sëñ Xaadim da koy def. Mhm. lépp mu dëppoo mhm. dañ ciy def sax léeg-léeg dañ ciy def dañ ciy am ay résultats. ci am ay résultats mhm. ba ba ba ba fu dul Sénégal sax. ci am ay résultats ñoo xamante ne duñ bokk ak ñoom sax réew. waaye dañ leen koy wutal bu ñu ko defaree ni ñu koy defaree ba noppi ñu jël ko jox leen ko. wax leen ni nga xamante ne noonu lañ koy utiliser. waaw boo ñu ko utiliser rek falaa kulli xaalin loolu moom bu soobee yàlla day taxali ko ak ñoom. mais bu dee yokk seen enseigne yooyu. déedéet loolu moom duñ ci dox. loo loolu loolu moom doxuñu ci. maanaam yéen daal du ngeen mhm. yokk jigéen. Ah, déedéet mais góor moom mm, waaw góor moom moom moom jàngoro la ci moom. Mhm. maanaam yokkal ko ko ba mu rëy ba mu mel ni a mel. ba mu mel ni mu war a mel euh, mhm. euh, wàll bi. mooy souvent. dañuy wax euh, maanaam mbër yi. dañoo ñemi sëriñ. mbër yi moom. seen conférence de presse ay galaat la ñuy àndaale. ay butéel ay saafara. est-ce que tey am na ay mbër yoo xam ne rek. sëñ Xaadim ngémb na leen ci làmb ji ci arène bi tey. tey ñu téye seen ngémb ba léegi daal. waaw am na ci mbër yoo xamante ne ñu ngi jëflante ak ñoom te ñu ngi ci ami ndam dafa dul yomb na nga toog di tudd tur mbaa ngay wax ci loo xam dafay xaw a jafe waaye am na ci ñoo xamante ne ñu ngi jëflante ak ñoom te it eh, fu ñu leen awloo rek ñu nga fay aw gàllaaj nag mook sport dañoo xaw a ànd guddi yi ndax boo bërewul ñu bëre daanu sa kaw waaw ah, léeg-léeg ñoom surtout wàllu mbër yooyu doon dañuy laal gàllaaj yoo xamante ne wallahi bu sa yaram normalul bu bisu làmb ji eh, eh, ku sibiro lay lay tane waaw ah, sa yaram moom dootu man dara waaw waaw ah, wallahi dara sa yaram doo ko ci man mais bu fekkee liñ naan li góor gi daan wax rek sama wayjur bi mm. eh, li mu daan wax rek naan naan tool boo bañee ku ko ruur dees koy ñag waaw waaw alors ci bal bi nag sport. Mhm. maanaam mhm. ce que am na ay joueurs yoo xam ne. Mhm. wala équipe ASC yi comme euh, yu Mali yu Guinée. parce que waaw football bi ñu ngi ciy def ay résultats xam nga football nag dafa euh, moom résultat liggéeyam dafa xaw a miti par rapport ak euh, nit ñi niñ koy jëlee ak temps ak ak niñ ko soofantalee ni jàpp ni noonu la yombe yombewut noonu tey jii boo engagé woon tey jii benn match képp daanaka yàlla xam na ni man nga jox match bi 90 minutes match benn match bi mën nga ko jox 90 minutes tey 90 minutes wala une heure de temps boobu noonu nga war a jox euh, benn match bi nii fekk yow yaa ngeeg soxla yoo xamante ne daf lay dépassé dafay xaw dafay xaw a miti moo tax football bi léeg-léeg Euh, bu ñu ci xawee kii tuuti de léeg-léeg moo tax ñu ciy xaw a ko léeg-léeg ñu xool yoo xamante ne ñoo ñu amal njariñ bu ko defee boobaa day day laaj ñu am ñu sacrifié nekk ci nekk ci nekk ci euh, ci ci football bi noonu waaye football dafa dafa dafa miti ndax léeg-léeg match ba ci ba ci ba ci biir terrain bi da ngay dem ba joueur yi taxaw ci biir terrain bi ñu walbati ko waaw léegi bu fekkee yow nag danga nekk ak équipe boobu noonu faawu nga topp ko kon danga koy topp ba match bi jeex. bu match bi jeexee nga teggi sa loxo. maanaam yow bu euh, laataa muy sifflé sax nga tàmbali. laataa waaw laataa muy sifflé nga tàmbali. fin bi mooy tax nga jóg. léeg-léeg bal bi dem rek mooy tax nga jóg. ok waaw football moom mbiram daa xaw a doy waar moom. Mhm. voilà euh, sëñ Xaadim euh, ne. Mhm. tey wax nañ ko. Mhm. tey ñëw nga maanaam léeg-léeg nga gis ay góor. yoo xam ne amee biir bu metti léeg-léeg mhm. mhm. mhm. waaw biir bu metti dañ koy faj biir bu metti dañ koy faj euh, léeg sax am na biir yu metti yoo xamante ne ngay dem hôpital ñuy def ay rajo ki analyse gi demee noonu du ñu gis dara waaw mais biir yu metti yëpp du lépp hôpital nga koy yóbbu biir yu metti du yëpp ay dem hôpital am na ci yoo xamante ne kii yoo xamante ne comme ba léegi ñu delluwaat ci reen yooyu noonu am na yoo xamante ne bu ñu ko composé boole kook aaya yi ñu koy booleel bu ñu ko la ko defaralee euh, euh, ab butéel wala njaq bu ñu la ko joxee boo ko naanee falaa kulli xaalin bu fekkee loolu lekkoon la day génn imma bu fekkente ne bu fekkente ne nag dafa nekk biir bu métti